alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala cher na amul benn bur bu nu war a jaamu budul moom noo ngi baalu aq ñëpp te di leen baalu tey ñaan buur bi subhanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñu ñëpp bokk yi tomb bi ñu bëgg fàttalante ak yéen mi ngi jëm ci lenn ci jukkay commercant bi mooy jaaykat bi ak jëndkat bi jaaykat bi ak jëndkat bi nag buñ ko waxee mooy jaaykatu jullit bi ak jëndkatu jullit bi yenn ci jukka yi nga xam ne bokk yi des na ko melawoo ndax ku ne xam ne ne jaay ak jënd léeg-léeg nga gis ci ñu koy def di ci rax lu ci bokkut wala ñu di ko defee anam goo xam ne lekk alal ja sax du dagan ndax nan ko nan ko defee ca jaay ak jënd muy commerce lu dagan la cheikhul xadim waxoon na ci wenn baytam ci téeréem boobu ñuy waxta tazawud diqaar bi muy wax ci yonant yi amal wa wasra wa nikah min kulli ma allahu aba nee na jaay ak jënd ak denc soxna bokk na ci li nga xam ne yàlla daf ko daganal ci yonante yi ñu di ko def nga xam ne yonent yi yu ci bari ñii ay sàmmkat lan woon ñii dan daan def commerce doy ne firnde rek mu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci commerce am bi nga xam ne saydatu Khadija moo ko joxoon alal jëm mu di ko def kon commerce lu am solo la waaye naka lañ koy defee ndax ni xew ca jamono jamono ji lañ koy defee bëgg bëgg a dund wala bëgg alal tax ngay liggéeyee lu xaraam wala ngay jaay lu xaraam wala lu ñu tuddee business wala courtier wala yu mel noonu nga xam ne léegi-léegi ñi koy def ñi ngi ciy lekk alal joo xam ne bokk yi du dagan riba la ca riba nag baaxut yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon ñi ngi lekk riba su àllëgee lam leen melal ak lam leen di jureel suñ ko xamoon lu ci bari dañ su koy maytandiku moo tax bokk yi ki bëgg a jaay ak a jënd war na ci ci moom mu dem jàngi xam-xamu jaay ak jënd boo demee ci téere fiq yi dafa am bunt yoo xam ne jaay ak jënd la ñuy jàngale ni ñu war a jaayee ni ñu war a jënd li dagan ci njaay le araam ci jaay li ñu sib ci njaay yëpp dañ koy jàngale moo tax Seydina Omar ibn Xataab radiallahu taala bi mu nekkee xalifatul muslimin am na marché boo xam ne daf koo ubbiwul moom Omar waaye dana marché bii képp ku jàngut xam jaay ak jënd doo ca lal nga xam ne ku cay jaay da fekk nga am ilmul bay ay washara kon nag loolu yaakaar na ne képp ku bëgg commerce war ngaa gëstu ci sa diine léegi nag jamono juy toll da ngay gis ñoo xam ne li ñuy wax ah sëñ sëriñ si rek a war a jàng déet déet ñépp war a jàngi xam seen diine laa yaxillu li muslimin an yafaala al hatta yaalam hukmallah ab jullit wërta def lenn lenn lu da caa xam la at yàlla atte nii laa ko déggeeg nii laa ko yëgeeg nii laa ko sañeeg sañut ab jullit diine des koy jàng lépp lu waaj a def koy jàng diine du yëg-yëg xam-xam la Seydina Abubakar nee na inna diina mamniyun ala naqli laa ala munasabati al aqli diine da nga naan yàlla nee na yonanti bi nee na wala borom xam-xam yi ne waaye am xel attawu diine inna diina mamniyun ala naqli laa ala munasabati al aqli li ñu fàttalante ci tomb bi mooy yenn ci jukko yoo xam ne kii jaay ka jënd wala kii business wala kii courtier am na ci ñoo xam ne dañuy xëy sol lu rafet rek bu ñu wàccee indaale alal ju bari ci tappaleeg ñu njaaj dong lañ koy defee mbokk yi bi ci jiitu mooy commerçant bi ci boppam jaay meeg jënd bi bu tax mu fàtte yàlla jaay meeg jënd bi tamit bu mu tax mu fàtte di tudd yàlla saa su ne saa su ne nay bàyyi xel borom bi ci kanamam bàyyi ko ci ndeyjooram bàyyi ko ci kanamam bàyyi ko ci gannaawam ci di ko tudd di ko fàttaliku loolu bokk na ci li war a tax muy mu mu muy muy lekk lu dagan kon boobu jukka la ci boo xam ne commerçant bi da ko war a yor benn bi ci des beneen bi ci des mooy lum nekk ci biir jaay meeg jënd mi ba waxtu julli jot na ko bàyyi dem julli lépp lu waay nekk ci wàllu commerce wala ci lijjant wala ci taqale wala ci lu mën doon ba waxtu julli jot bàyyi ko fi bokk yi da nga dem julli ji jaam ji sabar subhanahu wa taala cheikhul xadim radiallahu taala an buñ masaana noddu lu ko waay doon defal da nga ko arrêté soo ko arrêté wul boo dikkee dana wax foo moon nga ne mun a mun a dindi lépp kon moom mus koo caaxaane kon nag commerçant bi bum ci mën a doon moo xam kiy wëndeelu di yor ay bagaasam di jaay la moo xam ki am place la toog wax ku mën doon su waxtu wi jotee na dagg lépp lu mën mën a def dem julli su borom waxoon na ci alquran wa isa nuudiya li salaat min yawmil jumaa fastawi ila dicrillah wa durul bayya dalikum xayru lakum in kuntum taalamun nee na bu noddee ajjuma nodd gu mujj bu nga xasee nodd bokk yi ab sëy sax bu ñu ko ci takkoon sëy ba du dagan loo ca jaay ak jënd dañ koo war a firi waxtu woo war du dem jaamu ji sa borom urta am kon mbokk yi loolu ñu bàyyi ci xel kon bépp commerce boo xam ne yaa ngi commerce rawatina nga di jullit su waxtu julli jotee na nga ko bàyyi la nga doon def dem jullit ji ba noppi soog di delluwaat ca la nga doon def danaa ci nettali benn xissa daa am benn jëmm joo xam ne daa génn këram di dem marché di jënd matt bi mu demee ba ci yoon yi bokk yi bekk benn suratul maal benn takkub xaalis la fekk ci yoon yi bi mu sëggee ba loxoom laal takkub xaalis bi mu dégg kaddu yàlla gi ci jàkka ja mu bàyyi fa takkub xaalis ba bàyyi matt mam doon jëndi walbatiku dem ca jàkka ja ngir jaamu ji borom bi subhanahu wa taala bi mu demee ba jaamu borom bi subhanahu wa taala ba julli ba noppi mu ne naa tayyee dellu ca marché ba naa dellu sama kër ba mu demee ca këram fekk takk matt ba mu doon jënd ca biir kër ga bi mu dajjee takk bi mu daggee takk matt bi fekk takku xaalis ba doon far ca yoon wa suñu borom dugalu ko ci takk matt bi mu ne allahuma kama la tansa abduka fi risqika la tansaw fi awqaati salaatika yow yàlla yaw mi nga xam ne fàtte woo sa jàmbe ci sa bi rek sa waxtu juróom yi sa waxtu julli juróom yi bu ko ci fàtte bokk bokk yi ku nekkal yàlla yàlla nekkal la wa man yatawakkal ala allahi fa huwa asbuhu ku jox yàlla sa borom rek yàlla yàlla jox jox la la ma war a jox xoolal jëmmi jooju nag jaay ak jënd bokk bu mu yàqal suñu digganteeg suñu borom beneen bi ci des mooy ak ji yàlla am ci alal ji su la ko yàlla joxee nañ ko génne bu dee ku mën a génne azaka la nay génne azaka su waxtu woo jotee na ko génne ca jox ko ña ko lislaam joxlu nu alal ja toll na xool lam ca war a génne azaka mu génne ko ndax bokk na ci li yaabal alal mooy génn adaga te gaa ñu baree bari nag bokk yi yàlla ngi leen ñi alal waaye nan war a génn asaga ji sax duñ ko génne asaga kon nag bokk na ci commerçant bi li mu war di def ci ay jukkaam mooy muy génn asaga moo tax suñu borom tagg na ñooñu gaa ñooñu ci alquran rijalun laa tulihim tijaara wala bayu an zikrillah mu ne am na ñoo xam ne bu ñuy jaay ak jënd lu jaay meeg jënd mi neex neex du leen du tax ñu fàttali seen borom subhanahu wa taala foo leen fekk ñu ngi ko tudd rek du taxit bu waxtu jaamu yàlla jotee ñu bàyyi fa njaay ma jënd ma léeg-léeg da gis koo xam ne day wax allah akbar tàmbali juddu waa ji dikk na salaamaaleykum amoo dara mu ne uhu uhu wala mu ne dagg julli gi sax dem dem dem jaay ko jënd ga mel na gëmatul yàlla na bàyyi mu dem ca pare ca xam ne yàlla dana ko wutalaat keneen beneen client bu gën client bi waaye ja soo ba néegi jaayu naa julli gi jaay ko ndax amaguma lu yóbbu kër ga bari na ci commerçant yu koy def te loolu nag dagganul beneen bi ci des bokk yi mooy bokk na ci jukke yi commerçant bi mooy muy fexe ba li muy jaayee ko muy dagan muy nettale lu dagan bañ a dugal ci boppam ak njabootam di leen dundal lu xaraam bokk yi ki fàgg lu xaraam di ko dundale ak njabootam ma ngi la ñuy tooñ bari nañu tàllal seen loxo naa allahuma yàlla na leen nanguma seen ñaan loo ko war mooy la ñuy dunde moo daganul wa mataamuhu xaraam wa malbasuhu haram suñu borom nee na ñooñu ñu lu ma leen nangoo say ñaan koo xam ne ñoo la ngay dunde dara lu la bokku la ngay sol dara lu la bokku ci yàlla nee na boo ne allahuma man la nanguma la aj makka li muy baax baax alal ju daganul nga dem ajee ko makka suñu borom suñ tubaa nee na ci masalik boo nee labbayka allahuma labbayka suñu borom nee la labbayka wala saadayka ndax li la indi makka dara baaxu kon bëgg a dem makka bu mu taxit ngay liggéeyal loolu commercial lu bon wala lu ñaaw dem di ko aje ji makka bëgg a dundal suñ dawati bu mu la tax nga jaay sangor ngor ak su jom bay jaay lu bon wala ngay lijjanti lu bon wala ngay def lu bon di ko dundal sa njaboot dara baaxu ci loo ci mën a am lu mën a toll ajut makka joxewul asaka takkul soxna tabaxul jumaa sarxewul lan loo ci am ab yool amul kon kii jaay ka jënd na jéem am ci li muy jaay ka jënd yool bu dagan loolu na loo ka may mooy fàggu bu dagan moo tax suñu borom moo ne laa takulu am baynakum bil baatil bu leen lekk seeni alal ci ak neen léegi-léeg nga këf alal jaambur wala nga sàcc alal jaambur wala ñu lebal la nga bañ a fay wala nga trian wala nga ne nangam a nangam am na ci ñoo xam ne sax damay dégg seeni wax sama brodo laa yor damay ñoddi rek su ma bari lay toog danga ngaa xam bala ngaa bari da danga faatoom deen ndax xam nga ba da nga bari da nga faatoom te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ëllëg yawmal qiyaamati akbar lu milliards yi bari bari lu millions yi bari bari dana laaj benn dërëm bu ne foo ko jëlee noo def ba am dërëm bii ba nga ko amee foo ko def nan bàyyi loo xel ko audité suñu borom boobu ëllëg nii président bi di audité ñi am milliards rek millions yi mel noonu yàlla daq ko audit ñëpp te ñëpp lay ku ci dul bàyyi xel nag loola neex defal beneen bi ci des mooy war naa commerçant bi ci boppam jaaykat beeg jënd bi lépp lu lënt na ko fa bàyyi lu ko leerul ne lii baaxul nag fa bàyyi dem ci lu baax loolu bokk na ci li tax diineem set ab deram set te képp koo xam ne danga ngaa tabbi ci lu lënt tabbi nga ci lu xaraam xadis boobu Buxaari ak Muslim nettali leen ko waaye bokk na ci jukko yooyu mooy al birr wa sidq wa taqwallah birr mooy ak mbaax kenn ku ci nekk lala la yàlla jox ca mbaax di feeñ ki am ala ci alal ji mbaaxam di feeñ lu ca mën a dimbale na ko dimbalee ca nag mu ànd ak asidku dëgg na ànd dëggu na ànd ak ragal yàlla kon kenn ku ci nekk la la jox loole ca nga mën a amee suñu borom subhanahu wa taala moo tax yonent bi sallallahu sama wasallam nee na ñaar ñuy jaay ak jënd kii jaay ak a jënd nga xam ne ñu ngi ci xiyaar li fekk teqalikoowun lanuy jëflante ñoom ñaar bu fekkee ne wax nañ dëgg yàlla barkeel njaay ma waaye bu fekkee ne jëflante ñoom ñaar dëgg lalu ko nee na suñu borom dana dindi barkeb ñoom ñaar la doon jaay ak a jënd gi kon nag loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel la li ngay li ngeen li li ñu jëflante ñu fexe ba ñu ngi ci waxante dëgg ca bañ cee waxante lu ñaaw léeg-léeg nga gis ne waa ji ne billahi sa waay kii 1000 francs laa ko jënde xaraam daal boo xoolee sax 100 francs la ko jënde bëgg bénéfice bu bari moo tax waxoon naa ko fii nee naa bénéfice bu bari araamut waaye la koy araamal mooy ñàkk wax dëgg billahi nangam laa jë am njaay dañuy tere ku ci giñ te nit ñi ba jàpp na ne balaa ngaa jaay da ngaa wax billahi wallahi te am njaay dañuy tere ku ci giñ loolu nañ koy bàyyi xel billahi nangam laa ko jënde te fekk na waxoo dëgg la nga yëngeen la ngeen jaayante seen diggante ñaar dara dagalu ci barke nekku ci nan bàyyi xel loolu bokk na ci jukko yooyu bokk yi mooy yaatu kii commerce dafa war a am dënn bu yaatu warta am dënn bu xat loolu dana tax muy ñàkk ay client léeg nga dégg ñu ah waajee dafa tàng moom bu lay jaay da def nangam nangam benn prix dong lay am nangam nangam nangam loolu bokkul ci jukkoy jaaykat bokk na ci moo tax yonent bi sansam ne yàlla bëgg na waajoo xam ne suy jaay ka jënd day am xol bu yaatu suy àttee day am xol bu yaatu waaye bokk na ci jukko yooyu bokk yi mooy sori lépp loo xam ne day waral ak araamal jëflante gu araam ak jukko yi bon yi nga xam ne ab jullit waru koo jëflante mooy lu mel ne jëflante riba wala bayul gharal wala bay ayna maanaam jëflante riba mooy léeg-léegi nga gis ko ci commerçant yi ñu di ko jëflante lebel naa la junni boo mooy fay junne téeméer nga may fay xaraam xaraam daganut lenn lu ci nekk junni la lebal bu lay fay da la fayaat junni yooyu yëpp ay jëflante yu riba la pepp laa la lebal soo may fay pepp mi da may fay ceeb ak nangam mbooleem lépp loo xam ne ñoo bokk aw xeet ëpplante ci amul bu dee nag euro CFA dollar nga xam ne bokkuñu ay xeet kooku moom ëpplante ci dagan waaye bu dee bu bu dee fekkee ne benn xeet la leblante di ci ëpplante wala nu cay jaayante daganut loolu ñu bàyyi ci xel am na ci njaay moo xam ne léeg-léeg nga gis ko ci commerçant yi te l'islam bëgg ko mooy ñu ni tuddee bayowul xëral mooy ki sàcc oto ñëw jaay la oto bi dama dafa sàcc oto bi gëstu woo ko yow xam xam na sàcc la mu jaay la oto bi jënd nga njaay mooy xam ne xëral xëral la wala dama dikk ne la dama lay dama lay jaay après ca waxuma la ban marque oto laa lay jaay loolu tamit xëral la yooyu yëpp nañ koy moytandiku bu dee bayoo la ay na na ay na mooy damaa ñëw ci yow ne la damaa bëggoon nga lebal ma nga jaay ma nangam ba dat sangam ma fay la ma ne la nangam jiikat maa ngi la koy lebale cinquante mille dat sangam nga may fay nga ne waaw nga juboo te yow soxlaa tax nga leb ko nga génn di ko jaay dikkaat na ko man da li dama damaa am soxla su ma bëgg a jaay dama la ko bëgg jaay cinquante mille la ko lebal ba dat sangam nga ne ko trente mille laa ci man moom soxlaam tax mu jaayal la ko trente mille te bu dot ba dikkee mu fayal la cinquante mille kooku mooy bayu la ay na naa co dafa xaraam ci commerçant yi ñu ngi koy jëflante léeg-léegi loolu nan koy moytandiku bokkul ci jukkay commerçant kon nag bokku ci tamit ab commerçant bokk yi dafa war a sori lu mel ne xis xis mooy njar am njaay soow piir la fekk yokk nga ca ndox original la fekk royal la te léeg-léeg koy gis li ma lay jaay original la fekk false la du original léeg-léeg nga gis ko gars yi di ko def bu du original nee ko du original bu dee false nga ne ko false la yàlla mooy yor njaay waaye sac bi original la montar bi original la dégg nga chaîne gi original la li original la pour nangam nangam te fekk ne lépp ay false la ku koy def yaa ngay lekkul xaraam baaxul ñaareel ba ca des mooy beneen bokk na ci jukko yooyu nga xam ne lislaam da koy tere mooy ñàkk cee wax dëgg ñàkk cee wax dëgg ci la jaay beneen ba mooy neexu làmmiñ ba jaay li ngay jaay waaye du dëgg léeg-léeg nga gis koo xam ne aw làmmiñam wu neex moo tax marchandise sam jar waaye la muy wax lépp dara du ci dëgg moo tax publicité publicité am jaay charia du ko nangu ndax da nit dana ko seetaan dem jën jënd ko fekk nan ko publicité dara du ca dëgg bëgg sam jaay doo nga dox moo tax nga def ko kon yooyu bokkul ci jukko yi nga xam ne ab commerçant dana ko yore beneen bi ci des mooy war naa ab commerçant warut a foqale warut bëggle warut a ba bëgg dafa am al tamu am al sajon tàmm dong mooy fuqale waaye bu dee sajon na mooy fuqale ba ëppale léegi-léegi nit ñi dañuy fuqale kon kii jaay ke jënd na mooy te ni ko fuqale ci muy def ndax fuqale ci li ngay def dana tax nga kooj li ngay jaay dana taxit yeneen yu bari yoo xam ne du dëgg nga boole ko ci sa biirum jaay waaye tamit ab commerçant warta nay warta nay warta nay nay baaxut waxuma la sax ab commerçant waaye ab jullit dong warta nay ndax jullit bi bu nawee du dimbale mbokkum jullitam te nit ku nekk am na lu mu tanee moromam kenn ku ci nekk la nga sa morom doo ko ci dimbale bokk na ci la ab commerçant tamit ca li xew ci jamono léegi-léegi da nga ko ciy gis mooy dëkk bi pepp dafay manqué yow dong yaa fi am pepp nga ne ginnaaw man dong maa fi am pepp naa ko denc ba ci kanam mu gën a cher kooku koy def yaa ngay def lu xaraam ixtikaar li ñëpp soxla génn ko ci marché marché bi ñu mën koo jaay te da nga gis ci commerçant yi dana gisa dara manqué na fekk am na ñenn ñu ko am ñooñu ah duñ ko génnagul léegi nan ko xaar ba gën a manqué ñu génne ko ko ci marché bi jaay ko ñooñee loola diine da koy tere loolu bokkul ci jukko yi nga xam ne ab commerçant war na koo yor fii ni mujjantale nag mooy la Seydina Ali waxoon karamallahu wajhahu nee na ki gën sori ci doomu aadama yi borom bi subhanahu wa taala bokk na ci mooy ki yàlla jox alal ba nopp mu nay alxanniyul baxil ak ak kan ak ki nga xam ne day li nga xam ne day wàññi agru rujulaam mooy bàyyi julli ak fen ak yàlla ak ak nay ak di mbugal sa ñaari waajur loolu bokk yi dara lu ci baax amut bi ci mujj ci juróom yooyu say naa li waxoon mooy ak ñaawal jigéen ñaawal jigéen ne boo ko déggee mooy takk soxna muy benn wala ñaar wala ñett ngay indi ko sa kër nga jàpp kenn ki rek lu mett lu ne nga tekk ko te moo jiitu amaana moo jiitu ca kër ga sax de nga takk ñeneen abondé ko do faalee too ko defe ko dara teg fële ba ba bàyyi wàlla ci ay doomam ci yéen ko gi ci kër yi ñoo xam ne ci boppam buñ amee benn amaat beneen ka fa njëkkoon dañuy mel na dootu nekk soxna métti bu bari lay daj ca biir kër ba di ko daj ku koy def yaa ngay def lu lislaam bañ jigéen kenn du ko toroxal jigéen kenn du ko metital jigéen des koy teral soo ko mun a teral bàyyi ko mu dem ci ay mbokkam keneen jël ko teral ko te yooyu ñu ngi koy gis ci biir kër am na jigéen ñoo xam ne la ñuy dund seen biir kër wallahi laasim buñ la ko waxoon nga ne lii jigéen du ko dund ci kaw suuf isa atul mar al islam da koy tere ku mun ko yor jigéen mënatoo ko yor bàyyi ko keneen yor ko waaye xor ñoo ne rek méttital ak def lu bon lu ñaaw yaa ngay def loo xam ne diina santu la ko Seydina Ali yu nee ne loolu bokkul ci ay jukko yi nga xam ne julli bi da ko war a da da koy def bi ci mujj mooy yonent bi saa salaam nee na man xassana falayda minna képp ku ñu da def xis bokkoo ci ñun kon julli di nan delloo suñ xel te bàyyi waari xel suñ borom te xam ne adduna dara saxu fi te kenn ku ci nekk da nga jàkkaar ak sa borom te kenn ku nekk suñu borom dana la audit ku yàlla képp ku adduna mi tax nga jaay sa ngor jaay sa jom jaay sa fulla ngir alal adduna ak sàkku teefu daganut wa xaraam ngir bëgg a dund bis na ñoo nga dajeeg sa borom subhanahu wa ma ma ngay xaar ñëpp kenn ku ci nekk da nga wuji rabbana atina fi dunya hasanatan اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب ما زرع عن المحسين طويل لنا عمرنا صحح لنا أبدا وحبنا رزق والتوفيق يا الله وضمرا كل أعداء تر بنا قبل الوصول يا الله يا الله وكن معيشا لنا من شر حسد ما صرف من سنة يا الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكل سائر المسلمين آمين